Teşekkürler ben de. possible ndax ñoom rek la ñuy xaar ñu tàmbali programme ndax bu ñu jàngee ba noppi ci la Serigne Abdoulaye Diop Bichri di def waxtaan bi bu ko defee Serigne Fass. ndax di soññi mbokk yi ñu génn ñu ñu génn ndax mu ngi guddi te guddi gaa ngi sori ndax euh, bëgg rek diir bu gàtt rek bu defee ñu mën a tënk bu ko defee nit ñi mën a dem dallu ji. kon ñi ngi sàkku ñëpp ñu génn li woo waa kuréelu Matlabul Sifaaya ñu ngi leen di woo ñu ñëw incha allah ñu tàmbali programme